beaucoup monsieur le président monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu nuyu seen collaborateurs yi monsieur le ministre may may tuuti rek ma remercier président de ndax acte bi mu def ci Tambacounda dama taxaw fii yuuxu ne damaa bëgg université démb mun na may eh, benn eh, eh, chargé des programme de coordination pour université Tamba wax ne dafay dem le 26 le 27 le 28 le 29 kon université Tamba taxaw na mbaa den Tambacounda kaw ne den loya nun quoi ba université fe président ñi université Damba ayan den noome wona e kanjura nooɓaye jërëjëf monsieur le président monsieur le ministre euh, la justice auprès du justiciable ñun Tamba pour nañ ko Nous ñun Tamba indil nañu cour d'appel dañ daan dem appel Nous ba dem Nous nous am d'appel Tamba premier ascenseur ci d'appel monsieur le ministre monsieur le ministre fi wax ko lay en 2010 l'honorable député Mambala Lo fii la nekkoon def fi deux mandats dem def meeting ci dëkk benn kilifa pour Macky Sall mu ñëw ñu tëj ko six mois ab kilifa jóge fi ma toog kilifa bi toog prison mu woote ministre de la justice ne ko boo démissionné tey ci APR ñu génnee la ministre bi wax may dégg mu ne ko naa dee ci kaso waaye du ma génn ñu tëj ko six mois mu soog a génn loolu du ma tudd ñu wax ma ko monsieur le ministre buñ la laajee ci Karim Wade tooñ la kan moo tëj Karim mu ngi fii tëjoo ko kan moo tëj Karim Wade avec ça ñu lié ak moom alliance de contre nature mais dañuy xeex président de la République du dëgg tey jii ñuy tudd troisième mandat ne du am buñ toogoon fii safari bi président duñ ko tudd buñ fi toogul moo tax ñu tudd ko gis nga nit ab jaam day gëm yàlla te nangoo dogal lu ñu dugal ci lii Nous avons néew bi bu ndaw ci assemblée nationale bi coaching bu mauvais moo ñu ko jox jox ñu campagne politique politique le président de la république Nous avons un nombre insuffisant de députés dans cette assemblée nationale Nous bu la defalee colère da nga ko koy fay loolu Nous, personne n'est né ministre personne n'est né président de l'assemblée nationale nous avons été élus tous sur une même liste il n'y avait pas de liste de président d'assemblée, il n'y avait pas de liste de vice-président, il n'y avait pas de liste de secrétaire élu, sur une liste de députés. Donc, dans le 12 septembre, on était tous des députés, à égale dignité. Taïdi nek bu ñëwé président gis ku mu wolu gis ku mu bëgg gis ku xamné mën na doxal réew mu denk ko assemblée nationale bi nañ ko nangu lolu moy dëgg nit do ko bëgg ba paré nga xarab ko do campagne troisième mandat le président war na ko am ba falu nga ñëw di ko xarab loolu du dëgg du yoon que xam nañ président de la république waxul waaw waxul déet nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi mu toog fu mu ba mu jot conseil constitutionnel moo koy moo koy moo koy pourtant de ba ñu valider liste Dakar dañoo wóolu conseil constitutionnel dem ca mu jox leen raison lu tax ba ñu ñu kon suñ ko wóolee benn yoon ko pour toujours

tey damaa doon dama doon lekk ci laax bi démb dama ci doon lekk tey ñu génne sama loxo ci laax bi ñu bëgg cee wax naka su du noonu loolu rafetul président Macky Sall gore na président Macky Sall xam na nit yëmbam président Macky Sall xam na ku koy liggéey kati kuur liggéeyam tey jii am na sama mag yoo xam ne bu toogoon ci saal bii du ko du ma weddi ndax xam na ne li ma ko wax ci affaire Mame Balla Lo bi rek xam na ne dëgg la ndax ci ñoom la jóge woon du ma tudd kenn nag di ko may nag droit de réplique pour mu ñëw dugaat du ma waaye boromam xam na boppam monsieur le ministre justice Sénégal ñu ngi koy doxal suñ la wóolu woon bu la fi teg da nga koo jàng ku jàng ba pare teg ci tànkam ak ku jàng fa di ko jëfe du benn je vous remercie. La parole est à notre collègue Ramatoulaye Bodian ismaïla